meilleur Ngoye TV c'est meilleur ñu leen di ziar di ñaanal jàmm di ko sàkku si mën ngeen abonné ci seen chaîne youtube ngir ngeen di mën di déglu mën di sétan lu ñu mën di dugal nga dem sétan ko inshallah c'est meilleur alaykum mbokk internet yi safo di sétan seen site internet ngoy tv ñu si yaaraat leen bëggwaat leen bu baaxa baaxa baax di leen jox seen way kenn ku nekk rek ñu ngi lay fekk fa nga nekk di la jox suñu ñaari loxo di la nuyu ha ah. tay nak ñu bëgg a analyser ah combat balagay ak tafatine dem def nañu face to face ñom ñaar fale nga xamne ne TFM nan ngeen jangate euh, face to face bi yeen euh, yeen ñi nga xamne yeen ngi Ngoy TV wax ji bala wah, di wax ak tafati nim koy tonto nan ngeen ko jangate euh, ndax man damay wax sama xalaat ah yeen nit am ngeen droit ngeen bin commentaire yi seen xalaat inshallah rabbi ah ñu waxtane ko ndax man dama jappane tafati tafaatin warul toog bala Gaye ci ay waxam ndax bala Gaye moom ku ne xam na ne su ñaatiiram day wax day na wax te dina yëngal itam ndax loolu uh, mbiram la quoi bala noonu la mel dafa am xadar dafa am xadar moom su ñaatiiram day neex day neex day wax te comme ni mu koy waxee booy taawoon la d'accord xëj na moo gën a njaxlaf tafaatin ci wax ji tafa itam côté communication bi des na li tax mu moy euh bala du ko may fu mu waxe bala du ko may fu mu waxe da koy jox am njaay andi job, tafa nak yoyu mënu ko sinon day gawa melni ku gawa mer quoi to mën na sax baña nek mer mais est ce que Tafa warna top bala ge ci ay waxam mama bi ni non Tafa mama bi ni man pour man sama xalaatu bok Tafa warul wax. Tapha li mu war a wax mooy li mu war a def mooy jàpp ka ne mosuma bëre ak Balla ak ñiy posé question yi itam bu ñu finalisé wu ci benn euh, ci benn laaj di ko laaj Tapha Tine da nga bëre woon ak Balla mu daan la ñëpp adduna bi yëpp xam nañ ne Tapha Tine ak Balla Gaye woon nañu Balla Gaye daan Tapha Tine mais bëgg a ñëw question bu ne rek nga bëgg koo posé Tapha ba ngeen bëree loxo yi jogul. ba ngeen beree taf bala ngay daan la nga andil ko tax ci ak loo koy andil ak nappaajeeg yeneen ak yeneen loolu du question loolu du question question bi mooy nan ngay waajale bala gay mi nga xamante ni moom moo la daanoon nga waroon dem bëre ji ak roi des arènes roi des arènes ne day poos lam gi ba ci kanam yow nga walbateku nekkoon ci yoon bu baax am sept yoo xam ne daanu woo walbateku ñëw jël bala Gaye nan ngay waajalee combat boobu loolu mooy yoon ak la la daloon ci combat bale bu àdduna bi yépp gis ka ne am na lu la daloon ci combat bale nan nga koy waajale loolu moo nekkoon laaj yi ngeen war a laaj Tapha Tine waa mais say loxo foncewul say say loxo suur boobu say loxo doxul mais adduna bi yépp xam nañ ne suur boobu combat Tapha bala Balla Gaye Tapha ay loxoom doxul lan moo tax ay loxoom doxul lan lan moo tax du ngeen ko laaj loolu mais xam ngeen ko mais Tapha Tine tey mënul taxaw naan euh, sama combat ak bala Gaye bi passé dañ maa takkoon en galaaj daf ma jàppoon Tapha Tine du wax loolu du saltel victoire bu jàmbur Balla Gaye ndaanaan la champion la mais combat boobu yéen ñëpp xam ngeen ni mu demee yéen ñëpp gis ngeen ni mu demee woon waaw nekk ci plateau nag boo boo war a mën a wax rek taxul wax xam ngeen li ngeen war a posé tafaatin dee leen ko koy posé muy tontu mu leen lu mu war a tontoo looloo yoon mais gis ba pare teg ci sa tànk di laaj leneen non du loolu lam ji essaay nii du loolu waaw Balla Gaye tafaatin ay moroom lañ ay ay ay ay ay sénégalais lañ Balla Gaye bu daanee tafaatin ndam li Sénégal la comme li ma yàgg di wax tafaatin bu daanee Balla Gaye itam ndam li Sénégal la comme Balla Gaye ba ko daanee bu njëkk ndam li deson Sénégal lool la rek c'est la famille lam la nag business la kenn ku nekk da liggéey loo am sa kër nga koy yóbbu loolooy wax ji waaw ma gis foofu nag benn sess bu garaaw a garaaw boo xam ne dem gis naa ko ndax bi waa kër tafaatin jëlee seen affaire di ko suuy dégg naa ci palaato bi ñu toogoon foofu ci palaato bi ne dafa gaaw ah lii nii signature la ah, ay garaawul lii li lii warul mama bii nii warul noo non loolu du sa wax bu la neexee booy dem signé ci contrat saa contrat laa wax de saa face to face nga dem signé ci contrat nga yóbbaale sa butéel ci lamb la bokk tofi fi lañ koy ba te lu la gis ngeen ko ci làmb kon waa Kër buy ñëwee di wis bàyyi leen ñu def lu ñuy def dem mais dama gis que ne dañoo ñëw wis ñu naan noon yi dafa teel ak ay c'est-à-dire dugg na gën na du noonu bala gi itam def na ko benn ses bu rafet vraiment ndax euh, ñëw na fekk na waa Kër Tapha ses bi la ñuy toog jël seen affaire wis fa bala ngay ñëw toog ñom gaa yi ñëw bëgg wax bala ngay déplacer wu dem toog ci ses ses loolu ñu la ci féliciter ndax lu rafet la ndax bu la neexon nga ne duma tok ndax bindul kané ses bi diw mo ci toog be diw mo ci toog dañu tek ñaari ses yow la ñu wo yow yaay xol fu lay neex nga tok kon ses bobu nga def félicitations rafet na trop ngay ndaanaan nak di sampio bala ngay nee naa ko képp ku ko xeb xamoo bala ngay képp ku am ko ba ak bala di nelaw xamoo kan moy bala loolu yàgg naa ko wax dama koy wax Balla Gaye kenn du ko xeeb bés waaw mais nag damay faral di deg ñu ne bala bu entraîné xeebul mbër kenn du ko daan Balla Gaye bi muy daanu ak Bombardier dafa xeeboon Bombardier loolu laa di laaj oui wala non lan moo tax Bombardier daan ko dafa xeeboon Bombardier ok Balla Gaye bi muy daanu ak Eumeu ñaari combat am yépp dafa xeeboon Eumeu Sène looloo tax mu daanu wala xeebu ko woon loolu laa leen di laaj Balla Gaye ñépp mënoon nañ ko daan ci àddunaam sauf Boy Niang 2 Balla Gaye ñépp mënoon nañ ko daan ci àddunaam mu nangu ko sauf Boy Niang 2 te entraîné na ci ñaanlu na ci def na ci lu ne lan moo tax mu daanu dafa xeeboon booy ñaar kon loolu du wax yàllaa ñëw mu daanu bés bu yàlla ne tafaatin day daan balagay kenn mënu ci dara bés bu yàlla ne taf balagay day daanaat tafaatin kenn mënu ci dara yàllaa fi ne nañ ñaan yàlla suñu boroom kenn ku nekk li gën ci yow yàlla defal la ko te mu doon li gën ci yow ak say mbokk ak say ak say njaboot ñun dañuy analyse ñun dañuy analyse dañuy anaalis mais li ma xam to xam ko mooy combat bi li ci biir bot du ko gis to lamiñ du ko wax to nopp du ko dégg lii maa leen ko wax ci suuf lañ koy def fañ koy def toog ne pat mel ni ku deful salaamaaleykum wa rahmatullah oui pour yow mi nga xam ne dangay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew Ngoy TV da ngay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day leer nañ Ngoy TV daal c'est le meilleur pare nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala da nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV le meilleur c'est donc abonné sur Ngoy TV ngir di am actualités actualité ak information yu leer service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 Voilà 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoy TV Dal. c'est le meilleur abonné vous di am say actualité ak say information yu leer Ngoy TV dal du ay <laughs>